nit ku la mhm. bëgg la. seex ba ma waxee ci kaw. Mhm. boo ma woo ci suuf si ji ko kaw man la woo. Mhm. ne la yow yaa nekk ci dëgg nga wax. mais yow tamit waroon ngaa sóoraale xam booy bi am lu ma wax moom conseil ma ko mi ngi nii. ma ko loolu dëgg la. bu wax bu soo bu xam nga ne bu seex toogee ci live tey di la wax ay dëgg di ma jox dëgg. war ngaa xam ne Oulita wax nga lu ëpp parce que seex mii ku bëgg la seex Baye Fall bii. dëgg la waaw. waaw. maam Ndiaye toog ci live Sénégal gi yëpp di seetaan xoolal fii léegi nga àgg huit mille personnes. Mm-hmm. mu ne sa yaay gën mat loolu mosuma ko am ci soko. man man man lu bon rek lay wax ci sama yaay. Mm-hmm. bàyyi soko bàyyi soko mu ne la. pikin gi nga dëkk nee na Mame Ndiaye nee na pour mu leeraat pour sa yaram gën a dawaat. nee na yow pikin gi nga dëkk. li pikin di rëy rëy rëy yëpp sa yaay ku mu gënal gënoo ko wa waxul sax loolu mais sa yaay fa gën moo fa gën a baax. Mm-hmm. dëgg la. waaye loolu loolu loolu daal man daw na sama yaram daal. gis nga gis nga gis nga tey ji euh, man ñu bëri ñu bëri barke Seydina Muhammad bàyyi nañ ma ngir ngir ngir maanaam diwoo yooyu ma defal am ñu doon commandé sama vidéo dañ maa bàyyi ngir yow gis nga man gis nga man bëgguma kuy toroxal doomu aadama aadama da ngay déglu waale yow tamit yow da ngay déglu ñu ñu waxaale parce que damay joxe conseil nag may la nga wax bii lay mujjati waaw joxe soo gëmee sa bopp jàppale bu ko nga nekk sa bu ma neexee sax nga dem place bu ngeen seq jàmm mën dugal après groupe whatsapp barki alquranul karimi lu bëri yem ulita léegi nag mën ngaa wax bëri na leer na ma soko koy woo seytaane bi di ko xam bu naan ko bul bàyyi mu sedd su ko tey dina rus de bu la soko waxee loolu ba doomu xaraam la tekkiwul man de man de bu la ko waxee bu ko def di turu ku lay ku lay man di wax ku man di wax loolu maam Ndiaye xulool maam Ndiaye mu ngi lay dugal gis nga sa jubóog maam Ndiaye dina la dina la ay waa ñi may maam Ndiaye li nga ci am lu baree bare lu baree bare bare nga ci am lu bari nga ci am bu la yàqal dara billaay wallaay Sénégal yi kenn bañu la man de man de xam naa ne kenn bañu la kenn bañu la mais tant que ngi def live di ko tudd rek da ngay di indi sa bopp ay noonu Olida envoyé na demande bi jëlal tey lu rëy lu rëy nga am tey si live lu rëy rëy nga am lu rëy sax nga am war na yàlla Maam Njaay tamit ku wàcc boppam lay ndeysaan ku wàcc boppam la li mu def ni yombul moom tamit lii mooy ah. àdduna lii mooy Sénégal li aara moo def nga lu rëy am nga ndam tey jii li def ne lu rëy la yow tamit sam waa ji ah tey de man maa fi def live Oulita nee na bàyyi na lépp dootul waxati dara maam Ndiaye woo ma appel man daal man daal maa ma man ngeen di woowee seytaane ak naafiq nan ma aadama daa bon ay waay yaayu sëñ Fallou amati na dam waaye man tamit doomu selbe am naa ndam <laughs> sama yaay jur am Fallou de am sëñ Fallou de mais am naa ndam Wulita defal defal demande defal demande nga yéeg defal demande nga yéeg. wóor na yàlla Wulita nit moom na xale la quoi comprendre nga xelu xale ko jàpp mais. kii la booy la xale la xale la yéen tamit commentaire ngir yàlla ak jënante bi dama leen koy ñaan rek Wulita nee na bàyyi na lépp mu sedd. yéen Wulita bàyyi na lépp mu sedd. Wulita bàyyi na mu sedd. bàyyi na di demat si ay vidéo am commentaire ay vélo ay dof ngaak moom moo wax si kanam yéen ñëpp nee na bàyyi na mu sedd waaw bàyyi na mu sedd bàyyi leen di ko commentaire ay vélo di jëmmi Seydina Muhammad man mosuma toog si live Adamo yàggee fi nii bàyyi leen di ko commentaire ay vélo ngir yàlla gënante bi lu lu passé passé na mais gis nga commentaire yi ñoom it lu ji njaag ñoom ñooy njaag ñoom it dañuy jaxase ñoom ñi nga ni nii commentaire yi damay di seen commentaire ma suba nekk si commentaire ba man man man hmm. ngi noonu maam Ndiaye kaay yéegal maam Ndiaye olita yéegal maam Ndiaye ñëwal olita yéegal. Adamo yàlla na la def lu rëy de sax waaye lu rëy def maam Ndiaye def naa la demande maam Ndiaye ñëwal olita ñëwal ñëw leen yéeg leen ñu waxtaan. maam Ndiaye yéegal waaw Olita yéegal tey boss. waaw waxtaan la rek Olita ñëwal. ana Olita àdduna amul solo wàccal. waaw Olita soo ko nekkul di ko woon di ndax lim joteel maam Ndiaye bu ko déglu de. saytaane la fi nga fi nga génnee léegi moo baax. billahi fi mu génnee noonu baax na moom. moo baax de delloo fa sa rek Olita soo ko boo ko dégloo nelaw de. soo ko fi toll nii gàcce la am lu def fi mu toll nii ndam li ma am nii maam Ndiaye am ko Oulita am ko lu mën a def ba yàq ko dina ko mm-hmm. def dugalaat ci bopp bi leneen. non senegal senegal Sénégal ñoom ñoo am ndam. Sénégal moo am ndam fi mu toll nii. bilaay xoolal appel la nekk nii appel mën naam am koy woo gis ko appel la nekk mi ngi appel léegi xaaral ma leen xaaral dindi photo bi. xoolal appel la nekk appel sonewul léegi xaaral ma woo soko xoolal soko lay waxal sonewul gisoo soko gi nii gis nga ulita soko bu la jay de am nga ndam Sénégal am na ndam maam Njaay lu rafet la seede ci sa yaay te li fi wax nii ne bàyyi nga lépp sedd te ndax li mu mhm. wax lu rafet boo génnaatee yàqu ko wallahi non non non non bu gënaatee waxaat kay dina gën a yàqal boppam moom. bu gënaatee waxaat moom. dina gën a yàqal boppam yàq lépp nag fi mu a yàq sa bopp moom. Ah. loolu moom leer na ma nañ. maam Ndiaye ñëwul maam yow ngir yàlla mën a wax ak commentaire yi ñu bàyyi li ñuy bind si kii commentaire yi. yaayu sëñ Fallou amati nga ndam. ndam li maa nga xam nga ne fii lépp maa ko mën a régler Fernando yow xam nga ma. yow kay. fi mu yaay yàq yaay hmm. defar yow man jaaxal nga ma sax man. Hmm. xel bu sell naa la jël. léegi daa defal demande. Cheikh. yow ak Adama dafa am lu ma leen bëgg a wax ngeen bàyyi ci xel.